tey ndaje bi li ko waraloon mooy jëmmal li nga xamante ni moom mooy joxe ay chèques ñi nga xamante ni ñoom la projet euh, stade ibomar Mar euh, indil ay gàllankoor parce que nuñ ko xamee Sénégal dafa jël engagement ànd ci ak comité euh, international olympique pour Euh, organiser li ñuy tuddee Jeux olympiques de la jeunesse deux mille vingt six donc ci wàllu woowu ñu xayma ni stade bi war nañ ko defaraat defarin boo xamante ni bu mucc ayib la yokk ko gën koo yànjal moo tax ñu taxawaloon commission bi ñuy tuddee commission évaluation ak recensement impasse euh, ànd ci ak service su Ageroute ànd ci ak waa commité d' organisation JOJ ànd ci aussi ak cabinet MSA. bi ñu eggee ci cëppaandaw bi gis nañ ni daanaka lu tolli junni ak euh, ñetti téeméer ci ay doomu aadama projet boobu concerné na leen moo tax euh, ñu xayma woon lépp lu ñu leen war a jox ci ndàmpaay waaye may wax ni yombul woon <clears throat> waaye processus bi doxal nañ ko conformément ak euh, charte yi nga xamante ni moom moo am ci sunum réew ci wàllu woowu waxtaan nañu aussi ak ñoom ñëpp wax leen ni nga xamante ni moom la projet bi tëddee lan la indi comme jeexital bu am solo aussi ci ñoom moo tax bi ñu eggee ci cëppaandaw bi ñoom ñëpp d'accord nañ ci moo tax tey ñuy jëmmal joxe chèque boobu euh, ci wàllu xayma boo xoolee liñ leen war a jox mu ngi toll ci ñaari milliards donc uniquement ci li jëm ci wàllu ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon comme ay mécaniciens ay restauratrices ay pileuses mais aussi ay cordonniers may rafetlu li nga xamante ni jeexital la surtout jëm ci wàllu projet bi parce que dañu ni naam projet yu mel noonu am na solo dina yànjal dëkk bi dina jox askan wi ay infrastructure yu leen di mën a permettre ñuy tàggat seen yaram waaye aussi projet bi dina am lu mu fi bàyyi lu am solo bu ñu jëlee par exemple li jëm ci wàllu uude yi ñu gis ni fës nañ lool ci côté stade bi ànd nañ ci ak mair yi bu Médina pour war a tabax li ñuy tuddee maison du cuir mu nekk euh, kër goo xamante ni lépp luy métier jëm ci wàllu der dañ ko fay fekk donc loolu mu nekk lu am solo fekk si li nga xamante ni dinañ ko jël aussi teg ko seen loxo mu mën a nekk ndàmpaay ko loolu ñu rafetlu ko waaye au delà de cela yaakaar naa ne am na yeneen catégorie sociale yoo xamante ni nekk nañ fa bu ma jëlee lu mel ni mécaniciens yi jox nañ leen ay ndàmpaay yoo xamante ni war na leen a mën a permettre bu ñu ko bëggee ñu gunge leen ba nga xamante ni dinañ am site boo xamante ni dinañ fa mën a nekk ci seen téyeg bakkan euh, éviter li nga xamante ni moom la ñuy gis souvent di occuper télé yi wala di occuper place yoo xamante ni ñoom moomuñu ko. waaw comme niñ ko xamee état buy doxal projet lépp lu mu war a def bu ko defee ba pare. day soxla bërëb bi moo tax ñu jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk bataaxal bu leen di may délai boo xamante ni jàpp nañ ni délai bu am solo la pour que ñu mën a jël seeni matuwaay parce que ñu ngi ko tënk ba le premier octobre parce que toutes les façons ñoom ñëpp xamoon nañ ni euh, projet bi moom daanaka egsi na te jug war na am alors euh, bu dee ñi nga xamante ni ñooy cordonniers yi ñi nga xamante ni ñoom lañ mujjee euh, concilier peut-être dinañ xool ak ñoom nan la ñuy jéem a aménager waatee ba nga xamante ni ñoom dinañ leen euh, jox délai boo xamante ni ñoom tamit dina raisonnable pour mu mën a jël seen i seen i matuwaay en tout cas ñu ciy profité di lancer appel ñëpp ñu nga xamante ni ñu nga fa ñu leen li ñu warloo woon ak ñoom def nañ ko donc bu ñu leen gën a gore nañ ñu jàppale pour ñu liggéey stade bi pour que Sénégal mën a respecter engagement yi mu jël ci wàllu Thank you.